mboolem waa njaareem limaamulaay ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di kontaan ci daje bii maa ngi nuyu monsieur Guèye su ma ko nuyoo day mel ni nuyu naa responsable yëpp parce que du jël risque di leen lim ndax macha allah danoo bëri te gis naa leen ñoom ñëpp ñi fi jël kàddoog ñi fi jëlul kàddu ñëpp may nuyu mouvement Meya bi nga xam ne ñëw nañ fi aussi fekke lii suñu mag suñu xarit. Malick seen ñu ngi koy gërëm ci présence am di président mouvement sunu banlieue monsieur Guèye dafa nekk ndaw dëkk fii ci njaareem limaamulaay am ambition budul jàppale population yi ci loolu la ñu xamante ci loolu lañu ñu fasante kóllëre diggante booboog léegi lu ne daw na fi xoxotal bu ne xoxotal nañ ko man maa koy wax moom du ko wax xaalis bu dul su jinne proposé nañ ko ko pour mu bàyyi ma ah, lu nekk proposé nañ ko ko pour mu bàyyi ma waaye mu téye fi mu téye doon nit ku gore ku sincère ku baax model la donc yow ku la am ci xelam dina dal parce que àdduna am na leneen lu ëpp importance lu dul xaalis y a des am na yoo xamante ni kenn du ko jaay ngor soo ko jaayee rek fekk na amu ko woon ngor kenn du ko am di ko ñàkk donc yow ku gore nga ku am kilifa nga loolu bëggoon naa ko seede ndax xoqatal boo leen xalaat def nañ ko ko mel ni géejawaay daal ñëpp dañoo war a tëdd rek topp benn xaw ma sax lu may wax mel ni ay xaj mel ni ay kuti topp benn waay kenn du ñeme wax mel ni dañ ñu moom ko yow defal lu la neex doxal fu la neex géejawaay tu fais ce que tu veux. ñun bii ngay gis fii dafa mën na ñàkk rek ñun dañuy dox ñun nii dox géejawaay fu ñu neex la ñuy dugg ku ñu ñëw ku ñu fi dal wala dara di ñu fi fekk lu dëgër këj. fii lañ dëkk ñun ay doomu géejawaay lañ donc monsieur Guèye maa lay sant yaa ngi ñi nga àndal ñëpp comité électoral bi di liggéey waa géejawaay waa Sénégal li ñu war a xam mooy le 24 février dañuy tànn njiitu réew te lii ma gis candidat yi jàkkaarloo ki fi nekkoon damay wax di ko répété nii encore une fois y a pas photo du seen morom réew mi du fowukaay boo xam ne dañ koy jox ñoo xam ne kenn xamul fu ñu jëm ku nek ci ci ñom yor nga fi dara waye defo ci dara damay tambalé ci Idrissa Seck nek na fi premier ministre premier ministre Ablaye Wade liggéeyul dara Ablaye Wade Idrissa Seck on l'a mis à l'épreuve jox nañ ko lengey mu nek premier ministre dara deful Sénégal tay fi tay do dégg Ablaye Wade muk muk muk muk muk mu wax ba tudd turu kooku donc kooku xam na valeur yu kooku ndax ñàkk ay valeur ak ay principe mooy tax nit naan ngir politique kese politique kese nit naan tey léegi nekkatuma tijaan murit laa ndax politique kese kooku boo ko déggee di nga xam ni du nit ko am conviction du nit ko am valeur du nit ko am sutura té biñ ko joxé premier ministre dara la ligéyul dara ludul di bind ay CD e ak di geussu ay bulletin de santé Ablaye wad ak dara la fi deful dara la fi deful donc bi Macky Sall ñëwé nek premier ministre ci la Ablaye wad la mu namoon ci Sénégal yépp ci Macky Sall premier ministre la génné donc koku mën ligéyam ak xarañteem kenn mënu koo weddi muy ñeneen ñi nga xam ne du ma tudd seen tur amuñu expérience u état état mbir la boo xamante ni nii boo amul expérience bu la neexee nga taxaw plateau bu la neex wax lu la neex gént waaye dafa di mbir moo xamante ni lu sérieux la dañ koy jàng dañ koy xam dañ koy dund pour mën ci doxal waaye malheureusement amuñ expertise boobu donc Sénégal duñu ñu hasardé wu di dugal réew mi ci yoo xamante ni. ay ëllëg la yoo xam ne dara du ci leer nañu am fulla xam ni Sénégal dañu soxla stabilité dañu soxla continuité ci lii nga xam ni président la république def na ko fépp ci Sénégal rawatina géejawaay gis ngeen président lépp lu mu digaale géejawaay def na ko fi géejawaay chantier yi génn nañu en 2019 BRT bi dina fi commencé daw BRT mooy ay bus yoo xam ne seen yoonu bopp la ñuy am fi ñuy dem kenn du fa jaar te géejawaay bii lay jóge te waa géejawaay tax mu def ko banque mondiale financé ko président gis nañ ba mu nekkee fii ci réew mi 2012 ba léegi denrée première nécessité yi daf ko bloqué ngir yërëm waa Sénégal ngir yërëm néew gi doole ji kooku bu defee loolu ñu gis ko yër dem ci askan wi lu ñu mën a seede lay doon ndax booy seede da ngay seede loo xam président de la république yërmandeem ci population sénégalais yi ak ambition du lu kenn di jeex lu ne fàng la kooku nag waruñ ko wecceeg dara loo xam ne wóorul ñu xam ni la le 24 février bu ñuy dugal suñu bulletin di ànd ak bopp fas bi ci urne bi nañu jàpp ni Sénégal lañuy liggéeyal suñu réew bi nga xam ne moo ñu gën a lépp duñu dëkki fenn duñu daw dem fenn fii la ñuy toog ndax Sénégal moo gën ñëpp lu waay gudd gudd fan loi am fi nga ko fekk fi nga koy bàyyi le 24 février votel Macky Sall moy liggéeyal Sénégal ndax dafa di choix bi nga xamni mo gëna woor té ñi mu jakar lool ci walu profil ci walu expérience état ci walu ambition ci walu savoir faire bokku ñu amna ci ay xalé amna ci ay ancien triant ancien premier ministre lu neñ ci mais Macky Sall gàcce ngalaama musu fi wax wala mu def fi lu ñaaw liñ koy xolé koku le 24 février suñu carte bop yi bu ñu doy man sama carte bop doyuma motax may dugg ci réew mi du dugg biir géej waye fu ma fay dem mag ñi ma àndal pour que sénégalais yi votel Macky Sall suñu carte bop yi bu mu ñu doy képp ku fi nek bépp militant sympathisant kep ko xamné Sénégal mo la ñor fexeel ba sa carte boobu bu mu la doy jàppal ni yow yaa war a doon kii fal Macky Sall boo jàppee loolu ci sexal képp koo xam képp koo yilif képp kuy sa àndandoo képp kuy sa ànd jàmm di nga fexe mu votel président de la République Macky Sall ndax loolu mooy njëriñu réew mi am réew mënoo ko tracé ne yoon wii laa bëgg mu jaar def ci ay milliards yu dul jeex ñu ne sept ans dañuy indi keneen mu tracé waat leneen bu yàggee tracé yi dina bëri te duñ dem fenn

Je fexe bas sénégalais yi émergence ce mot là même si nous képp kuy ci sénégalais ont ni émergence lu am solo la ndax mom ci un peuple un but une fois ce but là émergence moko légui sénégalais yépp Sénégal émerger lépp lu yàlla namm dana ko def ci làmb ñu nit ñi ba nuppi donc réew mi mu ngi ci ay raay yu wóor am nañu pétrole am nañu gaz président de la bi mu koy liggéey ci wàllu infrastructure ndax loolu mooy fondement bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ni njaareem limaamu laay ñun ay doomu géejawaay lañ bu ñu demee taxani sunu matt fii lañ koy indi moo tax ma ne monsieur Guèye keroog ci meeting bi ne ko dinañ lever financement soixante quinze pour Guédiawaye bu ko defee njaareem limaamulaay man cee am wàllu dëgër yéen na ngeen taxoo rek ndax taxoo mooy tax a defaroo njaareem limaamulaay dina ci am part bu am solo boo xam ne dina leen ko jébbal ndax population yi ñooyu ñor encore une fois maa ngi félicité ñëpp di wax ni fii Guédiawaye bu fi wund naanee ñeex yàgg nañu gañe dañu war a gañewaat waaye gañe boobu nañ ko def suñu yittee nañ ko def suñu yittey bopp bu ko defee le 24 février balaa midi ndam li féete boor maa ngi leen di gërëm jërëjëf